a ah, fi ñuy indi mom ñun d'accordu ci fi baaxul wóorul amul sécurité té nak dégg na ay jaan nak ño nek fi ay agresseur limay wax ni ak sama dom ji ma bot. sama rakku jëkër dañ ko ben baram jakarta bu jigen ñëw ba fi ci lonas bi nee mom fatenai fàttali fàtt rek la faté sax yéré na jakarta dañoo yëkëti yat rek yan koko comme comme mom muy gor yore jakata mom lañuy agresser waxuma la ñun ñi di jigen wa fi amul sécurité yi nga suñ bagage yaangi ni ñu indi ba ma laajee bagasi ne bagage kan mo koy surveiller mu na man heure pause damay dem sama yoon kon donc ñu indi ñu fi sann ñu fi te nekk ay jigen ay mère de famille fi amul sécurité duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëllëg kérok dama fee and ak job and fek ñeneen ba dañ fii day am sécurité dinañ indi ay lampe yaa ngi dégg indi ay gardien ñu ne gisaguñ dara oo nañ ñu ñëw nañ ñëw nañ dàq nañ ñu dinañ ñëw nag mais suñ gisul solution dañuy delluwaat fañ nekkoon bërëb bii daal ñun moom daal fi ñu ñu indi du dara amul sécurité dalul xel te ñun ay jigéen lañu ay jàmbar lañ kër yi ñoo ko yor mu neex ñoo ko yor mu naqari ñoo ko yor waaye dañuy wax sëriñ bu mu ne ko ba voté jotee dañoo jël suñu carte d'identité dàq ñëpp voteel ko ngir bëgg mu jàppale ñu te yàlla rek tax mais xam nga ne fii ñu ñu indi baaxul guddi baaxul bëccëg amul douche amul dara làmp yi lañ ñu wax te lamp yi mooy loolu te fii ñu ñu indi bu fekkoon ne ñoo defar ay place yu baax sax jox ñu ko ñu jël mais amul place amul làmp amul dara te ñun ay jigéen lañ dañuy daan suñuy dool dañoo bàyyi suñu njaboot ci kër ga di leen si yeewu 5 heures matin war a yor sa xaalis dem jënd bagage borom jakarta dab la nangu sa alal am na lu ko gën sa borom kër nga bàyyi sa borom kër ci ginnaaw bàyyi sa doom ñu ñu tëdd foofu nga ñëw fi di daan sa doole nga bëgg a ñëw fi nga xam ne amul àll àll àll bu ne xandang la fu waaye bu ñu buñ ñu jamee paaka war ñu def ñu dara bu ñu fu ñu daw fu ñu jaar raw mais ñun dañ doon ñaan ñu may ñu bañ tabaski ba pare suñ tabaskee boo pare ku nekk di nga xool fa nga jëm wala ñu defaral ñu fii ñu ñëw ñun bañu ñoo ñëw de mais dañoo bëgg ñu defaral ñu ba mu baax sëriñ boobu nag dañ koy wax ne ko mu jàppale ñu te yàlla tax ñun ay jigéen lañu. damaa bokku ci ñi njëkkatee étage la ma indi ñu fii te ñun jaayewuñ ci kaw tali ñun jegewuñ tali ñu ngi ci ruq yi lañ nekk ñu ngi bañ nañ ko ba ñu ngi euh, étage la ma raana si si si escalier bi ñun foofu lañ ne jotewuñoo kenn. ñu jékkee-jékki fekk ñu fa yëkkati ñu ne fii lañ ñuy indi ci àll bu xonq bi ñun nag li ñu gën a métti mooy gisuñu fi douche tey ku saf saw xam moo fooy sawee te nit ki foo ko mun munti yóbbu nga tegal ko fa douche ndax nit ak douche ñoo ànd ak gardien te ñun suñ bagage yi nekk marché zinc suñ ko àndee fii mooy maye nañ ko ndax gisuñu kenn ku ñu ko gardeel te munoo xëyee ci àll bi dem marché jëli say bagage ñëw indiwaat ko fii boo wàccaatee di ko yóbbu loolu tamit dafa métti ñuy ñaan nag sëriñ buub ak képp ku ci ànd préfet ak gouverneur nañ ñu yëram nañ ñu yëram ta may ñu ndax fim tollu ni ci période tabaski lañ ne ñen ñaangi ni seen doom yaang leen war amaguñu luñu leen amaguñu luñu leen xottilé ñen ñaangi ni amuñu sax tay suñu waxé dëgg rek te dëgg tax am ño xamné dañ fi lañuy xey ba wacc dem ndugg yobul seen doom yi luñu lek tay ji amu ko fi tay tay kenn la kenn yu amul dépasse boo yobu sa kër tay ji kon nak nañu may bañ tëbës nañu may bañu ñu ba pare ñun gisuñu pavé ñun teg fii ñu nekk sax des dafa xóot ba bëgg a dee descente la bu tawee ci biir ndox mi ci biir ndox mi la ñuy toog. Kër ville nañ ko defar ba mu baax foofu nga xam wuy yeeg sàcc yeeg agresseurs yi ñëpp nga fay jigéen ñi jigéen ñi jigéen ñi dañuy daan seen doole waaye waaye nit ki boo ko yëkkatee na nga koy naan fii nga ko teg kër de ville lu ne nga fa jaan yaa nga fa kañ yaa ngi fa nee nga fa mel na ñun ñi ay mbaam lañu seen ñi ñi ñi ñuy ñi duñ teg seen yaay wala seen i doom loolu dafa ñaaw mais buñ buñ bu ko defaree ba mu baax comme comme marché poisson nu mu mel noonu miiré ko ba mu daj dafay place def say lépp ñu nangu faa dem waaye defar ñu dara ñu dem leen fa loolu dafa yomb. waaw waaw man du ñu soñoon moom nañ bàyyi ba julli ji jàll bu julli jàllee ñu defar fële defar ba mu baax ñëpp dem instant yi ñu ngi war a xot suñ doom yi suñ njaboot yi maa ngi yore ñaari jabar ba ñetti jabar instant yi man yëkkati nañ man nu may def man nu may def nit ki boo ko yëkkatee da nga koy naan fee ko teg nga defar ba mu baax ñëpp mën faa dem waaye jékki-jékki ñëw rek jàkk ji fii lañ julee fii lañ jaamu yàlla ñaata at mu ngi fi ñii jàkk ji nangam sangam yooyu loolu dafa métti dem nañ xool ko ay gasement lañ fa fekk ay gasement ñi yore seen gaas yi yore seen got benn jaaykat moo fa dem gars yi dañ ko ne hoo oh, waaj a daw day daw bu daw dañ koy rey ab mbedd la naan fay fay suuf yi lañ ci def suuf ay xeer yooyu lañ fa loolu du dëgg du yoon sëriñ boobu war nañu dañoo war war na yàlla dañoo war dañoo war bilaay walaay ñu gën a metti ba metti ñu parce que ñun dañuy jaay fii suñu rakk yi di fi jaay ay fiiriir ñun ñu fiy jaay ay jën ak suñu doom yi waaye ñu ne borom jën yi boole leen ci programme bi waaye boo nduggee da nga jënd jën waaye ñu ne nañ dem ñun ñëpp xajuñu géej njaay moo gis am na ambulant ñu ne buñ dem cœur de ville bu ñu jaay fii ci xay ji léegi ñun kay xanaa war nañ ñoo am fun ñu dugal ñun ndax ñun ñëpp xajuñu géej te géej koo dem taabalam la teg di jaay ñun amuñu fa ay palaas waaw waxuñu nee na ñun xajalul fa duñ dem nee nañ borom jën yi duñ dem te borom jën yi amuñu fenn fu ñu toog nguur kenn du jaayanteeg moom doole te nee nañ ñun ñu déglu laajuñ ñu suñ abi ñun daal comme bokkuñ ci société bi xale yaa ngi nii daw nañ ba daw nañ ba sonn lu ne defante nañ koog ñoom fii ci marché bi